Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf jëye bi am ca Mbour ak suuxub gaal bi yaboon émigrant moom la yéene kay xëyee niki tey ji réew mi quotidien addu ci taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye am na ko mu fas yéene topp ñi nga xamante ne ñoom ñooy capitaine u gaal yooyee ndax dafa jàpp ni lu jéeg njàkk ñoom ñooy njàkk kàddu yi nag yéene kay groupe réew mi bi mu ngi ñuy xamal ni moom njiitu mu ngi ko yëkkatee ci diwaanub Mbour gannaaw ba mu yóbbee njaalub Sénégal waaye tamit gouvernement bi jëmale ko ci njabootu ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan yéenekaay bi yokk ci ni yëf yi gën naa tiisati ndax yeneen ñetti niw démb feeñati na ba tax bilan bi léegi tollu na ci fanweer ak juróom-ñeenti doomu aadama yi nga xamante ne kon gis nañ ni ñàkk nañu seen bakkan ci suuxub gaal googee lii moo tax tamit Sud Quotidien di ñu xamal ni moom Diomaye fay fas yéene na defanteeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy passeurs yi passeurs yooyee enquête mu ngi ñuy dëggal ni tamit njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dafa fas yéene ku nekk ci ñoom mu ci yokk ni état ci boppam moom mu engagé wu léegi ngir kon yokk opération yi jëmale ko ci réseau migration clandestine bi ay opération ñu ngi koy xaar diggante police ak gendarmerie naka noone armée bi nga xamante ne dañ ko ci fas yéene boole yéenekaay bi yokk ci ni ab numéro vert tamit dañ ko fas yéene samp ngir askan wi di mën di boole ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy convoyeur yi convoyeur yooyee le soleil yéenekaay di xam ne njiitu réew mi daf leen fas yéene topp ba jeex tàkk waaye moom Bassirou jamay fay yamu ca ndax li mu sàkku démb ci way jur yi ca Mbuur bokk na ci ñu wàññi pression bi nga xamante ne moom la ñuy teg seeni doom ay doomu réew mi ñuy tayle ci géej gi yoor yoor wi di xam ne ni kon ñi koy def ñëpp bu yóbboo ñu waaj ndax njiitu réew mi dafa fas yéene defante ak ñoom la di xam ne ni kon defante gi du dara lu dul yoole ndax mooy solution bu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daa di taamu moom njiitu réew mi dem gi mu dem ca diwaanub Mbuur ak Kaolack dafa jàpp ni moom Diomaye day mel ni rek kuy jëm a charmer ñii di ndaw ñi lu muy sàkku ci ñoom mooy ñu bañ a yàkkamti ndax jafe-jafe réew mi moom du ñëw tey rek daal di koy saafara xëy na sax kàddu yooyee ci la Walf Quotidien daal di sukkandiku ngir wax ni dëgg-dëgg jamono ji moom Bassirou Diomaye Faye dafa jàkkaarloo nag ak réalité bi dëgg ci wàllu immigration clandestine bi nga xamante ne nguur yi fi jaar yépp daanaka dañ ciy tële moom mi nekk ci bopp nguur gi Le Témoin yéenekaay mu ngi ñuy yëgal ni yi li fa njiitu réew bokk na ci li mu war a tab ab directeur des affaires religieuses Vox Populi ne ñu yamu ca de moom Bassirou Diomaye Faye daa dinay dëggal bu baax diggante bi nga xamante ne état bu Sénégal am na ko ak këru diine yi mu nekk lu ratax lool ànd ci ak kóolute kóolute moom dafa mel ni amatul diggante assemblée nationale ak nguur gi te fi ñu tollu tembe la quotidien yéeni kaay mu ngi ñuy xamal ni kon waxtu kii di Diomaye Faye la waaye moom njiitu réew dafa mel ni ku bàyyi Sénégal Sénégal ci ëllëg bu leeragul li ko waral bokk na ci li Sud Quotidien di xamle mooy fukk ak ñeenteelu législature bi jamono ji dafa mel ni noyatuñu ndax ñu ngay xaar ndaxam dinañ leen tas tey ji am déet quatorzième législature googe di xaar war a dugg ci taarix am déet ndax l'observateur mu ngi xamal ni ci waxtu wu ñuy xaar tas ko am déet di xaar tamit ndaxam déclaration de politique générale bu premier ministre dina am mu mel ni mën na leer diggante tey ak ëllëg ak lim ci mënti doon ñoom député yi ca pencum ndaw réew ma dafa mel mel ni pare nañu ndax xam nañu li leen di xaar ci wàllub tas gi waaye ci beneen fànn wi nag lépp lu jëm ci protocole ba ci sax jumtukaay ak restauration bi assemblée nationale moom jël na matukaay yépp ngir dalal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko yamuñu ca ndax anam yu ñuy séddale kàddu gi def nañ ko ba noppi ligue de football professionnel def ba noppi tirage au sort ñeel calendrier saison bi ñu dëgmal Rewmi Sport wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci lu ñuy xaar ci saison boobu ndax am na lu ci yees ren ji lu toll ci fukk ak